am gàcce dama ruus noro wax te waxul dara noro wax muy sosal ay doomu aadama di sosal ñu nga xam ne nii moom gënu leen doon ay kilifa ci biir réew mi kooku gàcce laa ci am euh, dama nekk ci àll bi nag maa ngi ci tool yi ni di béy wante dinaa ñibbi si Dakar incha allah euh, procureur duma ko tontu ak kaddu yu procureur jot a yëkkati kooku jarul nit di ci meree doomam wante tontu du folox euh, man kenn duma xoqatal man damaa def choix mooy di dund ci république man du ma nangu di dund ci alliance pour la république te su ma baat ci kaw nag ba ma xam nag est-ce que procureur mooy yàlla wala mooy rakku yàlla ba ma ñibbi si Dakar dëkk bi ñëpp ko bokk procureur de la république suy instruire dossier da koy à charge et à décharge amul fenn ci àdduna fu ñuy gis procureur de la république di sosal ay doomu aadama moo tax ma leen di ñaan su mu ngeen ma mënee may ba mu ñuy bi si Dakar conférence de presse dinaa ko tenir incha allah mardi ci ñeenti waxtu ci ngoon du ma tontu procureur parce que procureur waxu fi lu tax ma kay tontu dinaa wax ak askan wi ñu xam lan lay wax su may wax ci waxu sosal ay nit parce que am na lu nit ñi mënul nangu ñu nekk ci dëkk nit ki jóg di sosal ay nit mel ni moom mooy tribunal moom mooy juge moom mooy lépp nit ki mënoo nekk chauffeur ba ga nekk apprenti ba a nekk mécanicien bëgg a nekk coxeur bëgg a nekk lépp mënul nekk kon nag luñ ci mën a wax daal mooy di ñaawlu bu baax a baax a baax luñ jot a dégg tey ci rajo yi loolu Sénégal moo am gàccee tey parce que lu toll ni magistrature du Sénégal ñëpp xam nañ que ci magistrature bi y a des magistrats de valeur te ci ay fan ci ginnaaw rek gis nañ ci benn magistrat bu am yu Deme génn am lu mu ñaawlu lu muy ñaawlu noonu lu nga xam ne ni seen biir la am Sénégal yi di ko laam-laame ci suuf dama ne dinaa ko wax ci kaw ba ma xool nag kan moo ci mën dara y compris le procureur de la république si àdduna la lu dul yàlla ñun duñ la dund te kippéewuñu la ba xool nag fan lay mujjee moom laa mën a wax ci gàttal ba mardi incha allah nag ba ñu xool est-ce que dëkk bi sénégalais yi ñëpp a ko bokk. Mhm. wala est-ce que Massamba wala Madamba la. ñu mën a sant.